ñu ngi ak euh, sëñ bi Mignane Diouf mooy coordonnateur forum social sénégalais bokk tamit ci kuréel bi nga xamante ne kon moo ëmb euh, ay euh, société civile ci miim réew ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy sàkku mu leer ci doxalinu li jëm ci xeex coronavirus bi sëñ bi réew mi FM mu ngi lay dalal jàmm ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu bu wax di leen gërëm di leen sant. yéen bokk ngeen ci ñuy laaj ñu daal di samp nu mu gën a gaawee ab comité ngir mu mën a gérer force Covid 19 bi lu tax loolu. jërëjëf du sax dañoo di laaj dañoo proposé woon ëpp na léegi ñaari semaine ñetti semaine defe naa. Mhm. bi nga xamante ne mbir mi commencé na euh, doon loo xamante ni xaw na doy waar. Mhm. ñu gis ne réew yëpp ñoo ngi jóg di organiser wu di xool nan lañ ci defee. seeni doole pour mun ko antu euh, di mu gën a gaawee bi ñu gisee itam docteur yi bu ñu yeewoo bés bu yàlla sax ñuy fanaan ci hôpital di faj di jéem a euh, jël di daal toppatoo leen ci kattanu yàlla dañ ne beneen bànqaas bi nag nga xam ne bànqaasu jàppalante lay doon nañ ko def ci anam yoo xamante ni dana tax bu ñu tey yeggee coow du ci am wala jiixi jaaxa du ci am wala ñaaw njort du ci am loolu moo taxoon mhm. ñun ci biir Kongaad ONG yi ñu ne nañ fexe proposer gouvernement bi mu taxawal benn comité ad hoc benn comité national boo xamante ni moom gouvernement ak ministère yi mu nekkal yépp ñu liggéey ci fànn ministère de euh, la femme ministère de l'économie et des de la santé ministère du développement communautaire euh, ministère de l'intérieur ak yeneen ministères yi ñoom ñëpp ñu am benn groupe interministériel ci biir comité national boobu mais boobu itam comité ñu dugal ci assemblée nationale dugal ci conseil économique et social dugal ci société civile dugal ci maires yi l'association des maires du Sénégal au conseil des collectivité territoriales donc maanaam kuréel yooyu yëpp buñ leen boole woon ci benn comité national. Hmm. mun na am ku ci nekk bu indi xalaatam te nan la ñuy procéder nan lañuy ñuy euh, gérer mbir mi xëy na munoon na am ñu génn fay xalaat yoo xamante nii dana weesu xalaatu directeur de cabinet benn ministre ak cabinet am. Hmm. Hmm. loolu moo nekkoon sunu gis-gis ndax ñun itam dañoo bokk ci ay ONG. doon souvent jànkonteel ay situation yoo xamante ni dañ ci daan gis ay calamité ay crise ñu ci intervenir hmm. pour distribuer ay dund pour distribuer ce que du ñuy wooyee cash transfert maanaam yónnee nit xaalis cash mu jot ko ci kontam wala mu jot ko ci téléphone am hmm. loolu biñ ko xaymaa bi ñu xoolee yooyu expérience yëpp dañ ne li gën pour Sénégal mooy comité boobu ndegam xaalis bi nga xamante ni moom la chef de l'État euh, di dajale di ci woo nit ñi doonul xaalis boo xamante ni benn ministère moo ko déposé woon budget ci assemblée nationale. Hmm. te di xaalis boo xamante ni ay doomu Sénégal ay xaritu Sénégal ñu sopp Sénégal ay nit ñu baax ñoo ko génne ne nañ ko dajale kat jàppale ci nit ñi. Hmm, hmm. kon xaalis boobu benn comité national munoon na ko gérer et non pas benn ministère gérer ko ci appel d'offre gérer ko ci ñu ko distribuer gérer ko ak technique boo xamante ni xëy na ay nit ñoo xamante ni am nañ ci expérience daanu mën a ñëw ci boobu comité jàpp ci liggéey bi lii moo nekkoon sunu démarche lii moo nekkoon sunu xalaat. Mhm. comme xalaat bu baax bu bon xëy na buñ ko boolewul ak yeneen xalaat mën na am ñu am lu gën a baax en tout cas daal lu gën. li nga xamante ni tey mu ngi commencé ubbi e, coow loo xamante ni mënoon nañ ko e, éviter. Mm. loolu xew ci jamono ji nga xamante ne gis na ñu kon e, action yu ñu door ba léegi muy kon jënd lii di dund gi ñu war a jébal askan wi waaye tamit transport bi yëpp ñu daal di koy def ci anam yi nga xamante ne jur na coow ndax loolu da nga foog ni dañu sauté ab étape maanaam njëkk a samp comité pilotage bi laataa ñuy soobu ci loolu. waaw gëm naa ni daal euh, xëy na bu nu njëkkoon a jaar ci ligne yoon bi nga xamante ni mooy yoonu comité boobu. mënoon mhm. na am xëy na coow li ñu éviter ko. est-ce que mhm. dañoo sotti benn pàcc boo xamante ni waroon na am waaw yaakaar na ne loolu am na muy pàcc bu njëkk bi. Mhm. maanaam taxawal kuréel kuréel goo xamante ni du kuréelu ministère. mais kuréelu sénégalais yëpp la. imaam yi euh, ñëpp ñëpp ñëpp jàng bi ak ñëpp. kuréel googu xëy na bu taxawoon xalaatin bi mënoon a weesu li ñu gis euh, waa ministère bi di def man moo tax ma yaakaar ni loolu moo nekkoon pas bu njëkk bi ñu waroon def maintenant comme defuñ ko nag jëkki euh, jékki itam lance ay appel d'offre qualité ceeb bi ak njëgu ceeb bi xamuñu kan moo ko validé schéma au distribution bi ban logisticien national moo ko validé. Mm-hmm. type camion yi itam kan moo tànn camion yi yi nga xamante ni distance yi ak kan moo planifié camion bi camion yi waxtu sangam la ñuy jóge fii yegg waxtu sangam wàcce ci waxtu sangam ñëwaat ci waxtu sangam yooyu yëpp liggéey la boo xamante ni benn comité dans lequel mun ñu dugal ay euh, ñoo xam ne am nañ ci expérience dugal ci ñu am yeneen xam-xam dugal ci am ñu am ñaan gu baax xëy na loolu bu amoon. yaakaar na ni mënoon na am ñu bañ a yegg ci kaw yi nga xamante ni euh, commencé na jolli comme ni ma ko waxee te muy coowu euh, ñaaw njort ne li ñu ci wax ak li ñu ci def nekkut woon li ñu doon xaar ñaaw njort ne njëg yi ñu annoncé mënoon na am njëg yu ko gën a woyof ñaaw njort ñi ñu jox marché bi mënoon na am ñu amoon ci ñeneen ñoo xamante ni itam mënoon nañ ci bokk yooyu yëpp. comité mënoon na ko def et non pas au ministre. Mhm. coow li nag ne cobboy tax ba jëwriñ ju ñu dénk wàllu wi mu ji génn tey indi ci ay leerlu ci poñ yi mu wax bokk na ci kon nee na lépp urgence la woon moo tax ñu doxalee lu ñu mel ndax loolu dalal na xel yéen waa société civile. waaw man li ma bëggoon mooy delloo la question boobu yéen ay journaliste ngeen fekk ngeen ci suba bi ministre bi di jël parole. di def mhm. point de presse di expliqué wu. dégg ngeen itam ci seen rajo yi ak seen journaux yi. ñi nga xamante ni ñooy borom camion yi ne woon am nañu camion yu ñu leen mën a jox dégg ngeen itam li ñuy wax yëpp ci ceeb bi ba dégg sax ki ñu jox ñaari contrat ceeb gi suñu mbokk boobu HM defe na mhm. dégg ngeen li mu wax. yéen nag est-ce que li ngeen dégg ci nit ñooñu ñëpp ak li ngeen dégg ci ministre bi lan ngeen ci war a mën a génnee loo xamante yi dina nekk un point à la une de vos rédactions loolu yéen ko war a mën a génnee nag. génn sénégalais itam ci dut ndax li ngeen di wax ñëpp a leen di déglu mm-hmm. mais man sama wàllu bopp mm-hmm. man li ma soxal mooy nekkul ne ndax ministre bi li mu wax doy na ma wala doyuma man li ma doy mooy est-ce que doxalin bi taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu war a taxaw ñun ñëpp doxal mi nga xam ne moo mën a doxal ñun ñëpp est-ce que doy na sénégalais yi est-ce que mën na tax sénégalais yi am yaakaar ni li ñuy xaar ci gouvernement wu Sénégal li ñuy xaar ci li nga xam ne président taxawal daan ci jot ci am yi ni gën a baaxee man loolu moom ma soxal te loolu nag pour man mu mu maa nga koy fekki ci li ma la njëkk a wax ci ci proposition ci démarche boobu comité ni ñu am expérience ci logistique ni ñoo xamante ni mën nañu waat ne mën nañu def masa ñu def euh, intervention humanitaire d'urgence intervention humanitaire d'urgence taxul nga yaakaar na ngi mun nga euh, lëmbee xelu nit ñi def la neex mais intervention humanitaire d'urgence da ngay am un comité humanitaire d'urgence hmm. comité boobu weesu na département ministériel dafa war a rassembler ay nit ñu bari. Hmm. ndax ba fi ñu toll nii euh, boole nañu benn yoon société civile ci processus bi. waaw société civile nag xaaru sax ñu boole ko gis nga bi mbir mi commencé. Hmm. dañoo def ree ñoo ñun ci biir Kolngat. Hmm. nee nañu xool nañ nan la ñu a def itam pour jàppale askan bi jàppale réew mi jàppale gouvernement bi ci loolu am ñu ñu sant suñu biir ne lañ nañu defal benn note conceptuelle ci li war a doon suñu wàll ci intervention bi. Hmm. ñu ngi def note conceptuelle boobu ñu daw partagé ko ci suñu ONG yi bi yi nekk Dakar yi nekk Tambacounda dans les régions et au niveau international. nga adopté ko boole ko itam ak benn projet de budget boo xamante ni nee na ci pàcc mi nga xamante ni moo dem ci pàcc mi mhm. lii war a def jàppale ci nguur mhm. ci pàcc itam nga xam ne war a dem ci li ñuy wooye le volet socio euh, psychosocial voilà ce que nous devons pouvoir faire pour jëmale ko ci jàppale bi ñu jàppale nguur mhm. yemuñu foofu rek itam ñu fexe rencontrer ministère de la santé dem fekk itam ay réunion comité national bi nga xamante ni moom la ministère de la santé mettre en place comité national de gestion des des pandémies mhm. dem waxtaan ak ñoom wax leen suñu xalaat waxtaan itam ak la direction de l'action sociale du ministère de la santé de l'action sociale nekk suñu xalaat lii la mhm. waxtaan itam ak secrétaire général du ministère de la santé nekk suñu xalaat lii la waxtaan itam ak direction de la planification du ministère de la santé maanaam ki planifier li ministère bi war a def ne ne leen suñu xalaat lii la mhm. mettre leen sax en contact ak suñu cellule régionale yi mhm. bind benn bataaxel itam yónnee ko présidence du Sénégal nekk suñu proposition yi yii la bind beneen itam bataaxel ne nañ boo dajeek ministère de l'action commune développement communautaire pour xamal ko dañu bëgg a doxalee ñun mhm. bi ñu yeggee itam suñu délégation bi mu yeggee gisantewul ak ministre bi mais gisante ne ak ay am ñu leen suñu xalaat lii la donc ñun xaaruñu loo xamante ni mooy suñu liggéey ndax yow ëmpaloo mbir ne hmm. ONG liggéeyam mooy jàppale askan jàppale politique ou état hmm. loolu la ñuy def pendant des années hmm. donc moo tax ñun xaaruñu woon sax ko ñu woo dañoo jógal suñu bopp xalaat def proposition def budget def plan d'action def note conceptuelle def ay communiqué am na ci yoo leen jot yoo xam ne kongaan moo ko def. Mhm. def def sax ay proposition ne président fexe demandé ñu annulé bor bi nga xamante ni Sénégal yore yore na ko wa Banque mondiale waa FMI ak yeneen partenaires yi yooyu yëpp bokk na suñu proposition yi. Mhm. donc pour ñun guerre bu amee amul benn citoyen bu war a des ginnaaw amul benn institution bu war a des ginnaaw amul benn organisation bu war a des ginnaaw. ñun ñëpp ñu war a jógandoo. sëñ bi Mignane Diouf ma fàttali kon yaay coordonnateur forum social sénégalais Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax jërëjëf.